mbind mu sell mi nee na ci jëf ya saar ñeent aaya juróom-ñett ba aaya fukk ak ñaar ci kaw loolu Pierre daldi fees ak xel mu sell mi neleen leen yéen kilifay xeet wi ak njiit yi bu fekkee ne xeetali nit ku wopp ba mu wér moo tax ngeen dëj ñu ci penc mi tey na ngeen xam lii yéen ñépp ak bani israel gépp ci turu yesu kirist mu nasaret mi ngeen daajoon ca bant te yàlla dekkal ko ci tur woowu la nit ki jëlee ak wér ba taxaw ci seen kanam yeesu moomu mooy doj wi ngeen xeeboon yéen tabaxkat yi te moo doon doju koñ te mucc amul ci keneen ndaxte ci roon asamaan amul weneen tur wu ñu mayee ci nit ñi wu ñu war a mucce